ànd ceeg Grégoire Ngom Grégoire mu mel ni dinañ waxat yi ci li nga xamante ni moo di émigration clandestine. Aïcha ndaw yi kenn mëne su leen a jamono ji daal ne nees ñuy def daal daal di eh, téye deret gi lee bokk na ci dal coow li nga xam ne eh, Vox Populi yéenekaay mu ngi koy waxtaanee ci xëtam mu njëkk ndaw yi daanaka tiitatuñu dara yéenekaay bi nag nañu eh, marine tegati na rek loxo lu toll ci téeméeri ndaw ak fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne ni ñoom ca boruka Saint-Louis la ñu leen jàppee ñoom ñëpp nag jëloon gaal gi rek ngir wutali réew ko Espagne. ni mel ñu daal di koy fësal nag benn fan kot ginnaaw ba ñu leerale rek ñaar téeméeri migrant ak ñeent fukk ak ñaar yi nga xamante ne ni ñu ngi leen téye ca booru Louga l'armée bi nag jàpp daal ni jamono ji ndaw yi daal tey ji la ñu gën a dogu rek takku ba dëgër wutali loolee di géej gi bokk na ci tam coow loo xamante ne ni le peuple xëy na rek ne ko fàng ci xëtam bu njëkk téeméer la lim moom tamit fukk ak juróom yoo xamante ne ni ñoom ñëpp ñu ngi rekk ci coowal Barça wala bokk Barça mi nga xam ne daal dafa mel ni ndaw yi géej gi kott la ñuy gis gisuñu leneen dégguñu tamit euh, kenn bëggu lañ euh, bëgguñoo waxtaan ci lenn ci li nga xamante ne ni euh, lu dul la dem wutali wàllu géej gi bokk na ci daal coow loo xam ne jot nañu ko ci fësal libération yéeni kaay moom tey ji ab nettali la xëye tey jëm ci nag li nga xamante ne ni moom moo ñeel rek loole di fukk juróom benn fukk ak ñett ci ndaw yi nga xamante ne ni ñoom fàtt nañ rek ca boru Cap Vert yéeni bi daal li ñu xamal ne ci diiru juróom-ñeent ci fan seen ko motoru gaal nag dafa mujjee woon na yàqu ñoom ñoo ñooñe dañu rek jéem a joow gaal ga waaye daal dañoo mujjee réer ca biir géej ga ba ñu amee nag ñaar fukk ci ay fan noone sax la ñu jàppoon rek loole di ab mbonaat seddoo ko daal waaye yëf leen woon benn yoon ñu ci bëri ci nag dañu rek mujjee soobu géej ba daal di faatu ñeneen ñi ci des jàpp nag ni lim na ci sax ñaar ñoo xamante ni daal la ñaar nag dañoo mujjee takkale ko ak seen uppa sago ba noone ñu takk leen ca biir gaal gi mu mel ni daal coow li nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy dund ci bileeka géej métti na lool ba kenn xamul ana rek fan nga war a mën a taxawi la tribune yéen kaay moom ci coow li nii yëpp moom jël na ci rek tamit tapp ci loolee nga xam moom moo jëm ci wàllu ko l'accident yi ñeel wàllu ko yoon yi bu ñu koy xayma ne nag ndax yëf yi dafa raxi xarraxu fa rek bokk na ci laaj gamu samp li ci leer bu leer daal moom ca la ko leer nee na bokk na ci nag dawalkat yoo xamante ne nii ñoom lu leen neex la ñuy def waaye tamit ndaw yoo xamante ne ni ñoom duñu dégg duñu gis direct ci ñëw si yéen kaay la ñuy ubbi jamono ji àdduna ak jëmale ci mbiri ko koppar financement ya jàppale nag ni loole bokk na ci dàll yéen kaay bi xëy samp nak nañu réew Sénégal jamono ji am na ab document cadre boo xamante ni daal am na ko ab document de france nag boo xamante ne ni ma mën a tax réew ko Sénégal daal di rek gën dajale ay financement ci wàllu ko marché international de capitaux waaye tamit ci kanamu bailleurs internationaux yi bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango jëwriñ gi ko gàlloo tam mu ngi ne fànk tam ci ëttuk alerte yéenekaay bu ñu koy xayma réew ko Sénégal daanaka fësal na ab document jaar ci ministère des finances et ñu koy waxtaanee rek dafa mel ni réew ko Sénégal. Sénégal nag moom mooy nekk réew mu njëkk ci Afrique mi nga xamante ne ni moom dana gën a sëgg ci logique yi nga xamante ne daal moom mooy indi ay résultat yu am solo yoo xamante ne ni ñel na ci wàllu ka euh, financement ci dendu pa Afrique waxtaane mbiru ko politique euh, lii di critique yéeni kaay nag nañu jamono ji daal diggante xayma gu leerul waaye tamit wàllu ko chantage politique ak pression yi nga xam ne daal ñu ngi ci biir njaboot yi dafa mel ni biir benn Bokk Yaakaar da leerul jamono ji nga xamante daal ci li nga xam ne moom moo jëm ci ana kan la fas yéene tànn waaye daal dafa mel ni jamono ji ma ngi koy natt diggante Amadou Ba ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ñoom ñi itam nañ rek fang ca tukka enquête yéeni kaay mu mel ni jamono ji ñu ngi wéy rek di wër candidat bu Benno Bokk Yaakaar donte sax jamono ji kenn xamagul ana kan lay doon wala bokk naka la war a mën a mel waaye daal ñi nga xam ne ñoom ñu ngi cay diiroo mbagg bëri nañ lool yéeni kaay bi nag di ca artu ne nañu wattu rek syndrome BSS mbiruka syndrome wala bokk ak mbiru ko euh, wér-gu-yaram bés bi le moom moo ciy waxtaanee jëm naka ci mbiru ko Covid 19 dafa mel ni euh, Sénégal nag moom ca bopp bala jóge rek mujjee ca génn nga moom daanaka euh, pay la jëloon jamono ji nag ma nga bu ñu sukkandikoo rek ci Baba Adama Si moom xam ne ma nga ca plan international fësal rek jamono ji juróom-ñett yu toftal la juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci téeméer boo jël ci askan wi ñu vacciné woon na rek ci weeru sulet atum 2023 jamono ji sori na loola juróom-ñaar fukk. ci téeméer boo jël yi nga xamante daal la organisation mondiale de la santé loolee daal daal di woon a digle mu mel ni daal jamono ji askan wi ah, dañuy daw li nga xam ne daal moom moo jëm ci wàllu ko yi la ko waral bokk ci dakk yenn coow yi nga xam ne ñu ngi cay ruuse Sénégal majeur na waaye daal la vacciné wul la ah, benn yoon na coowal Ousmane Sonko l'info quotidien moom moo ko xëyatee mel ni Ousmane Sonko daal fu ne ñu ngi ko fay dégg ba ca biir stade ya Ousmane Sonko mi nga xamante ne ni ndaw yi stade bu ñu dem rek ñu ngi fay wéy Sonko namm nañu la mu ni nag ah, lu ñu seetlu rek ca stade Amadou Barry ba noonee jongante bay tas ca jam ñaajo tam ca mbiri ko final coupe du Sénégal tam way wile jotoon nañu ko faa way bu mel ni son ko daanaka takkandeeram mu ngi fépp ci biir stade yi bu ñu sukkandikoo ci suñu yee naataango stade yéenikaay la ñu koy ndar képpee waxtaane gayndeek Sénégal ak ña leen di taxawal ca kaaya Edouard Mendy dafa mel ni daal kii di Mori Dieng ak euh, Mori jaw ak Seny jan jamono ji daal ñoom ñu ngi ci euh, tànkam rek Seny Dieng moom daanaka nag fësal na gën a dëgëral tamit taxawaayam Mori jaw moom dafay door a yegg si waaye la Aliou xam xamle woon daal moom mooy Edouard Mendy am na lu mu leen rawee mu bokk ci nag gën a yàgg ci bileek sélection ndax nag yëf yi dana soppeeku am déet bokk na ci laaj boo xam ne stade yéen kaay jot na ko sampay cha li mooy lu seen i kaay xew fësal ci yi ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal. sant ak ngërëm ñu ne la yow tamit. ma bàyyi la nga daw dem def yëfu yëfu yëfu séeréer yooyu daal di ndékki. ni ñu ko defee ci fajar gi Aïcha. <laughs> allez très bonne journée Grégoire Ngom jaajëfal ko bu baax a baax on va regarder juste un clip le temps que ñu daal di dalal sunu gan léegi léegi ñu dikkaat ci plateau bi.